Cheikhna Keita maa ngi lay nuyu. waaw maa ngi may euh, wax rekk ni euh, commissaire à la retraite nga waaye li jëm nag ci euh, frontières yi ñu gis ne kaaraange gi dafa des pour yow loolee lan moo ko waral. waaw xam nga Sénégal lii fi xew nii du dara lu bees bi nga xam ni tey tey la Sénégal dafa nekkum réew bi nga xam ni ci tollu ci fi dooleem tollu woon. dafa dese woon mat matle lu bari ci li nga xam ni moom mooy lii garder sunu ay frontières sunu ay dig digal ak yeneen réew yi mooy que ni déjà sunu ay effectif sunu ay nit doyul woon sunu ay gànnaay doyul woon ensuite tamit su sunu teewaay ci frontières yi doyul woon parce que il faut nga teew si il faut nga mën a bouger nga mën a dem mën a dellu si loolu yëpp dafa sooxe woon ci situation bu mel nii nga xam ni ñun réew yi ñu wër yëpp dañu nekk ci ay ay instabilité bu permanente depuis très longtemps nga xam ni muy Mali di Guinée je parle de la Guinée encore di di Burkina Faso di Niger dañu nekk situation bi nga xam ni terrorisme bi dafa am dafa bari doole mais ñun tamit fii ci biir Sénégal yàgg na sa fait des années que ñuy wax que ni terrorisme mu ngi fi effectivement terrorisme mu ngi fi ak nun ko mën a déggee mu ngi ci suñu biir dafa di toujours est-il que dafa yëngatoogul yëngatu bi nga xam ni dafay nuróog lu nekk Mali wala lu nekk feneen mais mu ngi ci suñu biir mais lii dalal xel yi mooy depuis quelques années yi tamit ñu ngi réagir réagir di monter en puissance mooy que ni police bi ak gendarmerie bi ak armée bi ñu ngi taxaw teew ci frontières yi di gën a def état bi mu ngi gën a yokk seen ay pexe mu gën a yokk seen ay moyens je crois que su continuer noonu dinañ am ay réponse mais situation bi situation bu normale la dañuy dem rek fexe ñu mën ko gën a maîtriser ñu gën ci mën a taxaw mais du lu woon lu mënoon ñàkk parce que loolu mooy Sénégal ci fi mu toll nii sooy xool li ci des yi tamit nga xam ni ci biir géej gi trafiquant wu drogue yi nga xam ni fii daf leen intéressé pour que ñu mën fi jaarale drogue ak consommation drogue bi nekk ci biir réew mi effectivement c'est normal mais comprenons que loolu dafa mën doon ñàkk parce que fi ñu jógee la am naa yaakaar ni balaa ñuy àgg fu gën a sori fii di doon gën a am ay pexe pour nasaxal ñëpp ñi nga xam ne doon bugg a créer situation insécu bu bu euh, sécuritaire bu baaxul fii ci Sénégal. Mm-hmm. waaye ñàkkum kaaraange gi tamit lan la a ñàkkum kaaraange gi mën na jur effectivement désordre ci frontières yi mën na jur mën na jur ay yëngu-yëngu mën na jur lii mu jur actuellement mooy que effectivement ci biir réew mi ak ci biti réew mi ñu war a am ay incursion ci frontières yi nga xam ni dañuy am ay yëngu-yëngu ci frontières yi dañuy am ay yëngu-yëngu ci biir géej gi dañuy am yëngu ci biir réew mi nga xam ni dañuy dem ba yëngu-yëngu yi yooyu dafay causer que ni xale yi di gën a utiliser drogue yeneen phénomène yi nga xam ne di fi am mais toujours est ko comme s'il est dit il faut que ñu teewal si suñu bopp ni loolu ba léegi tolluwul fi nga xam ne ñun mënuñu ko maîtriser ñu ngi ciy taxaw conséquence bi loolu la. très bien ay yenn yenn pexe lañ ci mën a xaar. pexe bi mooy li nga xam ni moom la ñuy def actuellement parce que Sénégal taxawuñu rek daal di nii du ñu def dara par rapport à lii mëdd nu dem na phénomène la bi nga xam ni dépassé wuñ parce que sécurité noonu lay demee da ngay gis li nga xam ni moom mooy sa problème ci kanam nga xool nan ngay def ba yow nga dab ko ba du la rëcc ba du la mëdd ci loolu la ñuy taxaw moo tax ci zone yëpp nga gis ni police yi ñu ngi taxaw pour que li nga xam ne mooy problème yi ñuy jàkkaar lool ñu indi ci ay jumtukaay yokk seeni pexe te ñu ngi koy yokk gendarmerie la même chose yokk seeni pexe ñu ngi koy yokk euh, armée la même chose yokk seeni ay pexe ñu ngi koy yokk bono nag gën xam phénomène bi gën ko miin occuper terrain bi occuper terrain bi mooy fi nga xam ni amoon na li nga xam ni matu fa ñu mottali ko ba mu mat fi nga xam ni amoon na ay phénomènes yi nga xam ni kenn miinu ko fa gis ñu jàngat phénomènes yooyu ba gën leen comprendre di agir en permanence nag sur le terrain pour que dara ba ñu rëcc vigilance boobu teewaay boobu taxawaay boobu rek moo ñu mën a génn ci situation bi du xaar ba ndar ndar ni kët ni jonn ñu taxaw ci kanamam mais dañuy teew ci kanamu phénomènes yi pour que lu ci war ñu def ko je crois que defee loolu dinañ mën a maîtriser phénomènes yi mais phénomène sécurité encore di ko topp di ko mu bañ la rëcc. jafe ñu sécuriser suñu frontières yi. lan moo waral. muy jafe léeg-léeg ngir ñu mën a sécuriser suñu frontières yi. mais mooy li ma la wax tout xam nga su fekkee ni yow sa say frontière dafa toll ni nga xam ni say pexe mësul tax ba nga mën koo occuper dañ naan frontières yi dafa yaraax su fekkee ni yow say jumtukaay dafa manqué woon ci benn anam ba ni nga mën a yëngoo ci frontières yi euh, comment dirais-je encore doo ko mën def dañ naan effectivement sa capacité opérationnelle dafa des su fekkee nag ci moment boobu mu nekkee dafa am ay phénomènes yi nga xam ne dafa jóge ci biti yi nga xam ni dafa yokk danger bi ci frontière bi effectivement dañuy nekk ci situation bi nga xam ni du nu mën a sécuriser comme il le faut les frontières mais boo xoolee ci jamono jii ñu nekk loolu jël nañu la mesure de cela pour aller mën a dem ci gën a mën a sécurité frontières yi police yi nekk ci frontières yi ñu ngi gën a daaral ñu ngi gën a taxaw parce que xam nañ ni frontière kenn du ko caaxaane armée bi ak gendarmerie bi surtout nu frontière est bi nga xam ne moo dox suñu diggante ak Mali ak yenn réew yi féete boobu boor présence armée bi ak présence gendarmerie bi mu nga fa ci condition yu am solo moi je crois que soo nee rek naka la ñu mën a def ba sécuriser ko da ngay dugg sur le champ opérationnel loolu ñu ngi ciy def suñu kamtalaayu kàttan moo tax Sénégal fii ñu toll ba léegi yenn phénomène ñu ngay dégg feneen yi amuñu ko fii. Mhm. parce que ñu ngi taxaw temm pour sécuriser frontière te ñu ngi am ay résultats. alors li jëm yi tamit ci trafic de drogue bi gis nañ ne am na ci juróomi commando yoo xamante ne dañoo mujjee réer. mu nekk tamit benn jafe-jafe guy gën di wëy euh, fii ci Sénégal. waaw loolu euh, vraiment ñu ngi koy métitlu di jaale ñi nga xam ni seen i mbokk dañoo def ci loolu. waaw mais booy xool phénomène bi ci moment bi mu am bu dul woon lii nga xam ni moo ciy ñuul dina ni encore une fois bravo marine nationale bravo nos forces de défense et de sécurité parce que ci seen teewaay ci seen taxawaay ci li nga xam ni mu ngi jëm ci xeex ak drogue yooyu nga xam ni ak njaayum drogue yooyu ak jàll bi narcotrafiquants yi di jaar fii Sénégal pour mën a dem feneen parce que booy xool ci weer yi ñu génn def nañ fi ay prise yu am solo ñi nga xam ni ak njàmbaarte ak teew ci terrain bi moo tax ñu mën ko def kon lii bu amee du nu mën gudul ni am na ay rëq-rëq yi nga xam ni moytu na te kenn prévoirul woon que ni trafiquants yi dinañ am yenn comportement yi nga xam ni moom la ñu am xanaa gën farlu gën a dëgërlu gën a taxaw gën a yokk suñu ay pexe gën a yokk suñu ay moye ba soo ëllëgee lu mel ni ñu mën ko éviter. Uh-huh. ndax responsabilité yi tamit ndax dafa partagé wu uh, ci uh, ci yow sa xalaat. xam nga lu mel ni bu amee dañuy yem ci terrain militaire la ñu nekk waaw boo mbiru militaire la mbiru armée la donc responsabilité yi responsabilité wu opération la du beneen responsabilité du dara kenn mënu ko wut feneen lu dul ci fi ñu opéré su ñuy demee di jàngataat li nga xam ni moom moo xew fa la ñu trouver responsable ci équipe bi demoon ñi yaroon équipe bi ni ñu organiser ak échelle commandement bi nga xam ni moom moo féete ci seen kow ñoom ban responsabilité la ñu mën a trouver ci biir ay responsabilité yu normal la armée daf di li nga xam ni dañuy ñaan yàlla tout le temps lu mel nii am ci mais lii dafa nekk ci biiram essence su armée mooy dem jàmmarloo ak situation yi nga xam ni dafay danger bu accident situation la ci biir opération si daal seen biir liggéey li nga xam ni sóoraale nañ ko moo tax ñu jox leen gànnaay moom moo am tey ñu doon ñaan yàlla mu ñàkk am mais am na tey donc suñ ko càmbaree dañ koy càmbar pour génn ci li nga xam ni mooy tax ñu comprendre lan moo arriver arrivé duñ ko càmbar pour ne bii mooy responsable bii mooy responsable pour xam lan moo arrivé parce que situation d'opération la bi ñuy dem jox nañ leen ay jumtukaay jël nañ ay matukaay en fonction li ñu xamoon ci terrain bi ak li ñu xamoon ci leçon yi ciy biir ëllëg moo ñuy permettre ñu taxaw xam yan responsabilité mais de manière conséquente ay responsabilité d' opération la du responsabilité leneen. dañuy gis yi tamit ne euh, à chaque fois bu élection présidentielle di ñëw rek euh, ñàkkum kaaraange gi dafay euh, bëri pour yow loolu lan moo ko lan moo ko indi lan moo nekk à l'origine donc nanu xoolee élection bii ñu nekk nii naam élection doon na am ay yëngu-yëngu. mais élection bii ñu nekk nii dafa bokkul sax ak yeneen yi parce que élection la bi nga xam ni dafa wéeru ci situation bi nga xam ni depuis trois ans ñu ngi ci ñetti at ñu nekk ay yëngu-yëngu yi nga xam taxawul ay nit taxaw ni ñoom seen yoon seen bunte ci biir politique mooy jot ci nguur gi te duñ dem élection dañuy jot ci nguur gi ci ay yëngu-yëngu la ñu jot ci nguur gi mu am ci ay situation yi nga xam ni dafa grave grave ba ay bakkan rot ci lu bari yàqu fi mu am ay situation yi nga xam ni dafa dem ba ñu jàpp ci ay nit yóbbu leen ci kaso bi parce que tout simplement ñooñu dañu taxawoon ci biir géewu politique bi utiliser violence pour que ñoom ñu xàllal leen yoon ñu mën a am li ñu am ñu dem di dem di dem di dem ba ñooñu seen doole jeex ci loolu ba ñuy utiliser justice pour jàllaat encore donc situation wu élection bi bokkul ak yeneen situation élection yi mais nag sur le terrain sur le plan du terrain gis na ni fexe nañu ba maîtriser que ba fi nu foogoon ni duñ dem élection ñu ngi naan dañuy dem élection alors que nit ñu foogoon nañu duñ dem élection parce que soo demee ci élection ba nit naan su ma ci bokkul réew mi dina tàkk ça veut dire que amoon na chance ñu demul élection kon résultat bi baax na gën a mën a farlu gën a mën a taxaw ci li nga xam ni mooy indi jàmm wala condition yi ñuy defee élection li nga xam ne moo ci nar a nekk ay tàkk-tàkk ñu fexe ba anticiper ko même ba maîtriser ko mu élection yi mën na nekk effectivement mais yëngu-yëngu yi ci am ni bokkul ak yëngu-yëngu yi doon am ci yeneen année yi ak yeneen élection yi élection ak politique dafa ànd ak yëngu-yëngu muy fii ak feneen mais nañu jàpp ni bii ñu am bii yoon dañ ci war a taxaw taxaw ci dëggantaan comme que processus bi dem na ba élection yi am. alors ban conseil nga am yi tamit euh, looy mën a jox ndaw yi nga xamante ne léeg-léeg ñoom ñooy engagé wu ci yenn parti politique yi tey tamit euh, souvent ñoom ñoo ci loru. waaw mais dama damay sant ci ni am na fi mu toll woon démb effectivement. mën nañu wax problème mu jeunes yi problème mu jeunes yi mais bu ñu defee ak seet lu tuuti nu gis ni tey jeunes yi ñu ngi gën a gisal seen bopp ci sama gis laa wax parce que am na fu mu toll woon démb dañ naan lu yëngatu rek ñu yaakaar ni xale yi dañuy wàcc ci mbedd mi toj def lii def la la jaay seen bakkan def leneen pourquoi parce que fi ñu leen jàppoon foofu la woon li ñu leen gëmloo woon ba ñu mën a def loolu loolu bu ngi rot ndànk-ndànk ba ñu ngi xool nit ñi ñu ngi dem di dellu si match football yi ñu ngi am basket mu ngi am leneen mu ngi am nit ñi ñu ngi leen di jàpp di leen di yemale di leen yóbbu ci kaso bi te kenn génnul ci mbedd mi toj def dara loolu indicateur la bu clair bu comme bu wane ni ci ñetti at yi ñu dem si mu méttee woon dëggantaan génn nañ fa ba jeunes yi ñu ngi gisal seen bopp xanaa nag continuer di wax ak ñoom xanaa continuer di organiser wu ba ñu gën a dellu ci comportement bu responsable xanaa continuer tamit di agir ba ñi nga xam ne ñoom ñoo doon utiliser propagande bu mel noonu ñu mën leen tënk comme ni ñu leen tënkee ba seen propagande boobu du jàllati ñu dellu ci def politique réellement bépp jeune bu nekk ci champ politique bi xam ni politique dox la ak wax nga mën a dox ak wax su élection jotee nga jël sa carte teg ko je crois que suñu defee jërëjëf may fàttali rek ni commissaire nga la retraite en tout cas ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax. merci bu baax a baax. merci beaucoup.